salaamaaleykum am yéen internaute Thiès Info salaamaaleykum yi ñuy teewlu ñu ngi leen di xaar bëgg leen jox leen seen wàccuwaay saa su nekk di am mbégte contentement di ànd ak yéen seen confiance ak qualité ngeen am ci ñun ba saa su nekk rek mbokk yi ñuy dox ci li nga xamante ni moom mooy li leen yi ki nga xamante ni jamono ji ñu toll ni tembe dafa neex askanu Sunugaal lool kooka bàjjen lay wuyoo mbokk yi nag ah, moom bàjjen dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la daam seen yëkkati ci moom démb mu nekk ay kàddu yu rafet macha allah tey ji nag mbokk yi dañoo doxantu ba ci këram ñëw ba ci ki nga xamante moom moo di yaayam moom bàjjen ngir rek laaj ko ay kàddu seere ci moom mu wax jëmale ci ki nga xamante ne moom moo di doomam di bàjjen mi nga xam ni instant bi euh, ñu toll nii tembe mi ngi def bruit euh, di yëngal waaye itam askanu sunu gaal ñëpp bëgg ko ci li nga xamante ne mooy lu am solo li muy def euh, du ma def leen lu dul bàyyi ki nga xam ne moo di suma yaay booy mu daal di nuyoo ak ak askanu sunu gaal salaamaaleykum. bisimilah Marie salaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi nuyu àdduna di nuyu sama bokk di nuyu sama njaboot bu ma sant yàlla yu di cont bi di sant sama waajur sama ñaari waajur di sant sama njaboot ci taaw ba ci caat tubaarikàlla macha allah man ba ma wàccee ci kër gi booba xale bu ndaw laa nekk seen papa di sama jëkkër gi ca ca jaxaw ndax lu moom yàlla yàlla moom la waaw moo ma jàppale woon ak sama njaboot fa tubaar ak samay bokk samay bokk kenn gën leen ñoom ñëpp jàppale nañ ma waa jaxaw jàppale ma ma leen sant di leen gërëm ndax di lépp ñoom la bàgget nag fa tubaarikàlla xamal na ko lu lu baax ndax maa ko jur waaye bu mu juddoo dégg dafa dara lu ñaaw waxul lu ñaaw deful lu ñaaw fa tubaarikàlla fa ne ko ma ba te mu ngi fa toog fayut fasawut wëndeeluwut taxawaaluwut yem ci samay loxo ba yàlla may ko jëkkër ju baax muy baax yor ko nag ni yor a ju ni ñu yore it ay moromam li mu def na da koo doon <laughs> lu waay doon mu dëgg tabaarkalla macha ndax man mii yaayam amoon naa jamono fu ma toog ni ñu fekk ma fa fu ma taxaw nit ñi fekk fu ma dugg ci géew sab boo fa day tas keneen di dugg waaw loolu am na kon da koo doon koo doon daam da koo doon waaw ma di ko gërëm nag di ko sant defu daral ñaaw daal waxu dara lu ñaaw jaxaw jot juddoo fa la yaroo ba toll ni mu toll mos na maa ni benn burwe waaw maag samay dëkk nga ni tubaarikàlla macha allah ma see xuloo mos ta xeex mos ta wax ak kenn daral lu bon waaw aar bi nag moom daanaka yàgg na ci yàggu ci day soog a feeñ waaw moom day soog a feeñ waaw mun daal xam naa ni yàgg na ci waaye nag day soo a feeñ mi ko soog a feeñ muy sant nag waaw. Euh, mu nekk sa doom nekk koo xamante ni fi ñu toll nii tembe askanu sunu gaal ñëpp ko bëgg loolu lan lay def ci yow. kontaan xanaa kontaan am na foo xam boo fa tolloon nag. da ngay xam nit ñi yëg nit ñi waaw guna guna sax guna bu la rombee waxal ak moom ndax nag tubaarikàlla bu la ñëpp bëggee da ngay bëgg ñëpp faale ñëpp ku nekk mag ak ndaw ñëpp ku la doon wax ak yow sax waxal ak moom loolu laa ko sant toujours ndaxte ay temps la rek dinaa on surviendra tout passe eh, waaw. tabaarakaal. mais loo loo loo waaw yow yow yéen kii est-ce que gënta gënta gënta gënta kii bàjjan. ah nga. Ah? man ko on surviendra tout passe. Oh, la santé na patience la section toujours mémoire. dégg nga loolu. gis mag léegi waaye am na jaarul naa ci. daa mel yaa gën a taxaw. maa ngi nag du moom ñoom sax mm. waaw nag. tubaarikàlla dangaa toll foo xam ne danga yë yëg ñëpp wala ñëpp waaw waaw boo ko nekkoon doo rombee sax ni nangam bàjjan taxal wax ak moom waxtaan ak moom. waaw loolu laa ko digal. Mm-hmm. ndax ay temps dépp lépp day jeex. waaw boo tolloon rek da wax la nit ñi am sutura am taraanga am njariñ nag waaw ndax man mii yaayam tubaarikàlla macha allah man toppatoo na ma tubaarikàlla baax nañ ci man dama dem marché may dem sax damaa neex. waaye mën ni xoon duma def waaye dama ko tàmm ah, damaa tàmm marché man damaa tàmm marché mm. ba ku ma ko tere ma bañ mm. waaye kon damay fi fii jàpp sama njàmbur mm. waaye nag man daal maa ngi koy digal na am ay nitam boo amee nitam mboolem ko faale na ko faale ko faalu sa mën na koo konté waaw waaw ni daal noonu ngay def di nga toog foo xam daal amoo bañ am amoo kenn waaw amoo xar ma yàlla waaw du ma bu sama sama noonu na wala na bu sàkk noon waaw bu sàkk noonu daal man daal loolu laa koy digal. Mhm. boo koy boo koy seetaan wala boo koy seetaan ci télé bi wala ñu indi téléphone nii la bàjj na ngi nii loolu lan lay def ci yow. Ah, sama xol day sedd nag yow tam xam nga xam nga foofu tool fa nga nga nga ree waaw noonu rek tubaarikàlla mhm. waaw dama sama xol day sedd mhm. mbokkam ñëpp ñoom ñëpp ñëpp ñëpp kontaan nag ba barke dem suñu xew ñëpp ni na ñëw. tubaarikàlla waaw waa Ndakaaru waa te ngeen ñëpp ñu na ñëw waaw xam nga loolu xëy sama xol seet na waaw féexte la an fa nga féex mm-hmm. waaw tubaarikàlla moom daam seen lu ñu bokk ñoo bokk ndey ak baay yow yaay yaayu daam seen man ma yaayu daam seen ma yaayu daam seen moom mooy moom magi daam seen moom moom moom ak daam seen moom moom ak daam seen moom ak daam daam seen daanaka kii rek la mag samay doom mm-hmm. waaw kii rek la mag samay doom macha allah waaw ah. ñu bàyyi la nga ñëw ci moom tuuti. ah kooku nag tubaarkalla macha allah daam moom bëgg naa bëgg naa cëpp mën na dama bëgg sama taaw ndax Fadou Sène mooy sama taaw waaye tegale bu jubee ku ca topp baax waaw moo ko dal ndax moom waaw ku ca topp rekk da ngay daal jub waaw noonu la demee waaw moom mooy sama taaw Fadou Fadou Sam. waaye tubaarikàlla macha allah moom bam naa ko ba fi mu ne sama yónni ci dara sa lépp moom laa ko jox waaw ndax baaxam boot ñëpp nag boot nañ ñëpp tubaarikàlla daa moom moo ko yoroon ci këram ba yàlla def mu ñëw fii sama ci këram gi fii waaye moo boot ñëpp tubaarikàlla njëkk a baax njëkk a judd njëkk a baax waaw waaw tubaarikàlla macha allah nag kenn gënu ko moom tam sàmm daam ma dee xool sax day jooy. waaw bëgg na ma trop waaw bu toog si dal bee moom bërki na ma sampal dal bee waaye du ta toog ci suuf toog hmm. bu dikkee toog ci suuf du ma xool ca kaw ma xam xëy damaa bëgg moo tax ma wan koo gannaaw hmm. waaw defal na ma ko lu ma bëgg lu ma bëgg rek bàyyi na ko man hmm. yóbbu na ma màkk defal ma lu ne Alaaji Bakar Jaañ ma njëkk a yóbbu màkk nag Bakar Jaañ moom ma njëkk a yóbbu màkk waaye boobu moom daam décidé na ko ba mu demee ba mu tukkiwaatee mun da ngay dem mag nga ngay del ma ko naan an ayca daal tey coob rek man xam nga <laughs> waaw tabaarkalla macha man daal maa ngi koy gërëm di leen sant rek. mu mel ni eh, tey tarbiyu nga bu baax a baax ki nga xam ne moo di seen waajur. waaw tarbiyu na sama doom yëpp tarbiyu na ma tabaarkalla sama am caata ngi nii tabaarkalla macha allah loo bëgg ci suba ba jot sama ngi ci wiye sàmm seen mag kenn gënu ko ma sàmm ku ma sàmm. moom mooy si kii eh, président jëkkër sa ay loolu ñoom li leen ko may du leen lu dul liggéey bi nga xam ne moom nga liggéey seen kër waajuru góor. fi na fi na na daal ñaar bu seen kër fi moom. tubaarikaal waaye kenn mosuma xamal dara. mosuma ñaan dépasse. koo dégg rek fa yaayam jaar. mosuma sama jëkkër. mos kenn mosuma ku ma àttee moom xanaa fo kii fo nii rek waaye kenn mosuma ak jubalee ak moom. pour nii ñëw jubaleen déedéet bu ma sànni ku la nekkul ma ñu laam ñu dëkk. ku ne da nga wax ak dëkka waaye kenn mos na jubale wóor na yàlla ma téem mos kenn mos maa ñaan kenn dépasse ci jaxaw yàlla defoon nag muy maçon waaye ba ñu maçonee liggéey ba dama woon noonu xam nga liggéey bu njëkk dama woon noonu waaye tubaarikàlla bu ma man daal boobu maa nga marché rek man ba ma fukki at ak maa nga marché juute ñaar dërëm marché la ma fekk ca Korya maa ngi marché ba nëgën maa ngi marché waaw loolu moo ma jàpp nag waaye mosuma kenn mosuma ñaan kenn dépasse loolu moo am na moom waaw say bokk nag daan na ma dimbale kon man màgg ji princesse subaarikàlla macha allah ajaratu ajara mbay ah mbuuma ñag sama mag ndey njaay mbay tubaarikàlla macha allah samay bokk ma daan dimbale dan daan waaye ka ko daje nag yonent bi laa ma sa gane fii toog naa juróom benn fukkat waaye yonent bi laa ma gane mooy ma gane kenn déedéet daw ma dem fenn xanaa hôpital képp waaw loolu moom loolu laa def sama jëkkër ji nag teral ma bëgg ma ko masax wol xool bët bu ñaaw ba nala barke Xalifa Maalik ku ma mere sama mere ko boo ko rombee mere ko rek ndax du la tuddati waaw jàppale ma nag moom moo ma jàppale woon nag moo ma jàppale woon nag tubaarikàlla ak waa kër gi sama kër gi tubaarikàlla eh, samay bokk laa si ndax kër bi yema góor mooy seen ma moo moo mooy borom kër gi man tam yéen a góor a sama maam ma sëy si kër gi lu ma neex waxante ko lu ma neex defante ko ñoom. nii rek moom ñoom daal sama sëy dafa neex tabaarkalla. solo ma bàyyi la nga ñaanal nga ñaanal xale yi. xale yi nag maa ngi leen ñaanal gudd fan wér ak seen njaboot njaboot mbooloo mi di taraanga yokk ba yëg ko fu ñu bëgg a yegg yàlla fa yàlla yeggale barko waaye ñëpp baax samay góor ak ñëpp baax na tabaarkalla macha allah man daal fi may ma dara. <laughs> Eh, ah <laughs> Ndeye njaay nag bu ma ko jàppee dégg naa li ma wax lépp dégg naa ko waaye ba ma ko jàpp ba ma jàpp. Ndeye Ndiaye lum la. Ndeye Ndiaye nee na certificat sa yaay ma ko jëm ak ñaawaayam. la wax bàjjen. moom la wax eh. ko ma nga dégg ma nga jàkkaarloo pharmacie ba xam nga moom la wax kon ma gis ko Ndeye Ndiaye rek lay tëkku. kan Ndeye Ndiaye ma ko gisee tubaarkaar neex. <laughs> <laughs> macha allah mi ngi kon Ndeye Ndiaye kon Ndeye Ndiaye waajal te xam ni te xam ni yaay yaay bàjjen mu ngi lay wër macha allah. ba jàpp ko. <laughs> ñu daal di kontaan ci moom bu baax a baax waaye itam mbég ci moom yaay booy di la ñaanal fan wu gudd ak wér di kontaan ci oyof gi. oyof gi macha allah euh, baax rek euh, la ñu nemmeeku ci yow waaye itam nii rek nga mën a mel di ñaan yàlla gën a guddal fan wi wéral cër yi euh, ba nga gën a fekkee njariñu njaboot gi ba ci caat ak ñoom ñëpp macha allah kontaan nañu bu baax a baax waaye itam bég nañ ci yow di kontaan ci képp koo xamante ni mbokk yi yaa ngi ñuy teewlu di ñu seetaan loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon kii di yaay ci ki nga xamante ni moo di bàjjan ak daam seen yëkkati ay kàddu yu am solo jagleel leen ko may jaajëfal ñaar ñi ma jaakaar ci yéen liggéey bi am na solo di kontaan ci képp koo xam ne yaa ngi nuy bàyyi xel seen mbokk seen xarit fal Damel sëtu Buur seen bàyyi Serigne Saliou jërëjëf